la ñu taxaw nii Modou Gueye di ancien directeur du domaine moom moo accueillir ki nga xamante ni moom mooy euh, la coalition Sàmm ak ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany ak euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Anta Babacar Ngom. Pape Gorgui Ndong également monsieur le maire Pikine moom mi ngi fi voilà li moo nekk fi nga xamante ni moom mooy euh, diwaanu Pikine Sàmm Sa Kàddu mobilisation bu doy waar la ñu fi def leader yi xam nga nag fii dafa xaw a bëri ay euh, leader yu bokk ci APR dana bokk yaakaar loolu moo waral euh, d'une part aussi ambiance bi dol nii ndax boo gisee bés maroon yi bëri nañ fi trop. Pikine salaamaaleykum waa Sénégal xam naa nag buñ ñu ko mayee voilà Modou Gueye moom mooy euh, waa ji wax noonu di leader politique nekk fii ci diwaanu Pikine nekk euh, maire Thiaroye euh, Jidda Kaw voilà moom moo nekk noonu boo xam ne bëri na trop nag bëgg na ko jege comme ni ma ko wax rek fii ci Pikine dafa bëri ay leader politique. voilà nekkoon fii DG domaine moom mooy waaj a yëkkati ay kàddu bu xante bi na xaw na bëri ndax euh, ku nekk day bëgg a jege nga xamante ni moom mooy si na xëccoo Ousmane xoolal ma bu bëri bi nga xamante ni moom moo fi am gis ngeen waa ji moom ñu ngi koy dóor mi ngi koy dóor oh ñu ngi koy dóor Ousmane waa ñu ngi koy dóor waa ji dafa sàcc la wala nu mu noonu waa ji ñu koy dóor ñu ngi koy dóor ah donc euh, ñu ngi koy dóor foog naa nag euh, ponkal yi toll ni xaj ñu si moom Ah. mel nag am na na. Njool maire day avancé Njool maire fi eh. guerre des positions guerre des leaders ndax ñenn ñi jàpp nañu Barthélémy Dias moo war a nekk si kanam c'est vrai que moo Modou Gueye moom moo ko accueillir mais ñenn ñi jàpp nañ ni dañ ko dañu war a toog dafa war a nekk si kanam waru nekk si ginnaaw donc euh, ku nekk rek ak. Euh,

Ousmane sama baax dalal suñu ay frères ak suñu ay sœurs ñu bokk ci intercoalition sàmm sa kàddu Takku Wallu Sénégal mon frère Bougane boo leen ñëwee Pikine xam may nuyu damay dalal doomu Pikine bi ànd ak Buur du Sénégal muy Anta Babacar Ngom Anta doomu Pikine la ñu ngi koy dalal kër maamam di ko dalal kër baayam tey nag ñu ngi leen dalal fii ci xolu Pikine nga xam ne marché syndicat gi nii dend ak stade Alassane Djigo taxaw ay jakartaman ñu ngi ci biir ay marchands ambulants ñu ci biir ay entrepreneurs ñu ci biir ay chefs d'entreprise ñu ngi ci biir ay maçon ak ay plombier ak tout corps d'état ci PCP bi ci biir ñu ngi taxaw xale yii nag dafa am lu leen digoon dañ leen digoon ne leen transformation Sénégal ñaanuñu wu état de grâce deux mois lañ leen ñaanoon xale yi am patience xaar sept jàpp huit mois gisaguñu dara mu soppeeku seen condition xale yi tey lañ gën a sonn tey lañ gën a am fitu songu géej gi ndax ñàkk espoir bu dal ci seen kaw xale yi tey lañ gën a sonn parce que ñu doon liggéey ci ñoom arrêté nañu leen xale yi tey lañ gën a sonn parce que entreprise nationale yi ñi fa nekk ñu ngi ciy def de la politique politicienne bi wàññi xale yi ci lu jaarul yoon kon xale yi seen yaakaar dafa tas xale yi nag seen yaakaar mi ngi commencé dekkeeku ñu ngi commencé amaat yaakaar ci intercoalition bi di sàmm sa kàddu takk wàllu Sénégal fii ci Pikine nag bu ñu waxee intercoalition lan lay tekk mooy ñii suñu mbokk yi bokk sàmm sa kàddu dañoo nas ñun ñëpp suñuy buum def ko benn Pikine fii bulletin bii di takk wàllu Sénégal la ñuy voté bu ñu demee ci département de Dakar ñun ñëpp ñu nasaat suñuy kàddu def ko benn voté Pikine ñu di leen dalal ñi leen dalal ñooy xolu Pikine kii toog mooy le maire de la ville de Pikine di Abdoulaye Timbo l'homme aux grandes réalisations kii toog moom mooy Abdoulaye Diop dina maire de Guinaw Rail Sud wala sax le maire de Guinaw Rail l'homme aux grandes grandes réalisations foofu ci Guinaw Rail ki ci sama ginnaaw xam ngeen ko Mari Sow Ndiaye di honorable député yaa ngi xeexal Pikine yaa ngi taxawal Pikine maire Baye Diop Mamadou Mbengue def Dalifort loo xam ne kenn defu ko fa fii ñu jàkkaar lool suñu rek suñu xarit di jàmbaar a président Macky Sall Rama Ba ñu koy wax Rama Macky Rama jërëjëf Pikine jeunesse bi kontaan nañ ci yow nga dem ak sa frère Abdoulaye Gueye nekk kenn ci jeunesse Pikine nekk nekk cadre bu mag buy wane ne Pikine am na li Sénégal am moom mooy ay ressources humaines de qualité ñu dem ak suñu frère Pape Gorgui Ndong Pikine kenn du ko présenté kenn monsieur le ministre l' ancien maire fi waa Pikine Ouest di jaay ba léegi ñu jàkkaarloo ak honorable Aïda Sougou di ko xam ne Sénégal ràññee na ko non seulement ci xam-xam ci wàllu njàng waaye aussi xam-xam ci wàllu diine loolu nag mooy richesse Sénégal loolu lañ bëgg a saax saaxee loolu lañ ne duñ ko fi nangu man nag man nag man nag maay ndaw Pikine bi nga xam ne maay safoo waa Pikine